pièce ñii nii ñu yor saag ñu yor saag ñooy GIE ñëpp ay jàdd góor ñu doon ñu waxtaan si seen micro yi seen nopp yi ñu sol mbaxam DSL ñii nii ñu yor saag ñu yor saag ñooy DSL ñu tudd ak jàdd koor